jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi nga xam ne ni yéen a ngi seetaan Touba Argentine TV nga xam ne ni yéen ngi ci Amérique latine bi ñëpp ñoo ngi leen di ziare di leen balu ak di leen bal ak tey jii ñoo ngi ci Sam Fall fii nga xam ne nii mooy dëkkub Serigne Cheikh Fall Baye góor nga xam ne nii Serigne Cheikh Ndigal mi ngi fi ñëw di ko màggalam bis bi mu wàcceeb liggéey kon ci ndigal Gora Seck Touba Argentine euh, la ñu dikk fii yéen ñi nga xam ne da ngeen safoo Touba Argentine ngir mën a dund Sénégal mën a dund Touba mën a dugg Baye Fall kon lii mooy li nga xam ne nii moom lañ leen jëlee moom la ñuy euh, ubbee nga xam ne nii Touba Argentine da leen di indi dara dootu du manqué ci biir ci màggal gi dinañ leen indil ziar bi dinañ leen indil euh, li nga xam ne nii mooy sikkar indil leen li nga xam ne nii moo xew ci biir lépp dara du leen ci ratte na ngeen xam ne na ngeen mel ni yéen a ngi biir Sénégal na ngeen mel ni yéen a ngi biir Touba te nag li nga xam ne nii moom mooy Baye Fall dunduk Baye Fall ngeen mën koo xam pire ngir léeg-léeg ñu gis koo xam ne nii dañ koy gis mu mel benn melokaan ñu adressé ko Baye Fall te fekk ne Baye Fall dafa am nu mu mel ngir ñoom li ñuy saxoo laa ilaha illallah la ñuy saxoo ba pare boole ko la yàlla di wax naan euh, lan tanaalul birra hatta ak euh, hal adullukum ala tijaratin tunjikum tu'minuna billahi wal yawmil akhir fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum loolu mooy dundug Baye Fall nga xam ni kon ñoom seen alal soxla wuñ ci lenn li ñu dajale lépp ñi ngi koy dajale ngir defaat ko ci yoonu yàlla kon ñoo ñu ay soldaarul islam la kon sëriñ Cheikh Baye Fall muy muy góor a Seck ñu ñu koy waxee Baye Fall moom it Baye Fall la Mouride Sadikh la kon lii mooy li nga xam ne nii moom lañuy ñëw di leen ko taataan fii ci Sam Fall bisimilah. Euh, kon sëñ Alaaji Dia li ñu lay laaj maanaam bisub tey bii lan moo ko waral. bésub tey bii li ko waral mooy bésub Serigne Cheikh Fall Baye Góor la mooy fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru baraxlu. juróom-ñeent fan kon ci weeru baraxlu. ci la sëriñ Cheikh Fall Baye góor wàccu liggéey ñu di ko màggal fii ci Sam Fall ci njiital sëriñ Cheikh Roqay Fall ndigal mi nekk ab xalifaam ànd ko ay ak ay taalibeem ñoom ñëpp ñu naan di ko def loolu mooy sabab bis bi bis bi nag bisu ñaan la bisu barkeelu la bisu ngëneel la ndax sëriñ Cheikh góor day nee na ku bëgg ku fekk sàmm ku ma fekk sàmm xam ne am nga fi am na am na am naa fi dara saam gi ku fi ñëw ku nekk boo delloo da gis sa bopp loo xam ne nii gisoo ko woon bàyyi ko woon sa bopp kon mooy bis bi nga xam ne nii moom la senegal gépp di màggal rawatina yoonu Baye Fall rawatina waa Kër Sëñ Fall ndigal waa Kër Sëñ Fall Baye góor bis bi nag loolu mooy sabab bi ñun nag li ñu war mooy ànd ak sëriñ bi di ko di ko def te ñaan mu yàgg ko fi lool di ko def. nu ànd ko ak moom loolu lañ ñaan di leen ko ñaanal yéen itam yéen waa Touba Argentine noo ngi ñaan seen télé bi na mun na yaatoo Amérique mu ñëw ba yaatu nañ Sénégal ba ñëpp maas di ko seetaan ci barke Sëñ Tuubaa ak barke Sëñ Cheikh Fall Baay góor lan ngay wax ñi nga xam ne ni ñoo ngi Touba ña nga Argentine nekk euh, Amérique latine bi li ko wër lépp di ko seetaan lan nga leen di wax ci bés bii. li ma leen wax ci bés bii mooy fenn fu waay nekk fu nekk. nga di ko seetaan seetaan nga fas ci yéene ni maa ngi Sam nga fas ci yéene ni maa ngi Sam boo ko ci fasee ñu ñëw Sam lépp loo xam ne am nañ ko yàlla mën naa doon ko am te itam ñoom ñi nga xam ne yàlla dogal ñu nekk bitim réew seenu taalibe wut a manqué dara saa su nekk ndax sëñ Tuubaa loo jéggi boo jéggee ndox jéggi ay géej ci nga a xam kan mooy sëñ Tuubaa sëñ moom boo toogee fi Sénégal dong man naan sax dina ci am lomb ndax bu ñu nee sëñ Tuubaa ñu ne keneen waaye boo génnee bitim réew di nga xam sëñ Tuubaa kenn rek la amul ñaar kenn rek la waaw. maanaam bés bi nan ngeen ko fas yéenee màggale. bés bi day nin ko fas yéenee màggale mooy jàng nañu alxuraan ci suba gi ñu ngi sikar ñu ngi siyaare ñu ngi beernde te guddi gi ñu fas yéen tudd yàlla ba asamaan set bu ñu xëyee sëñ bi ñaanal na yéenoon dem ba déwén ak jàmm. jërëjëf jërëjëf. be rahmaani rahiim ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen balaq di leen balaq ci bis bu tedd bi bis bi nga xam ne Serigne Cheikh Fall baay góor moo ko waral ah ñu ngi wax itam ci kàddu Njóogu Njaay président daayira bi a ah, kooku nag suñ ci dee waxit sunu wax du ci mën a sori waaye nag pas-pas bi nga xam ni moom la kër gi am tey jii fekk ngeen leen ci pas-pas bi mooy àndandoo takk wenn say nekk génn guum kër gi loolu lañ leen toqee tey jii kuy xam Baye Fall ci kër gi nga ko xamee su ñuy wax euh, yoonu Cheikh Ibrahima Cheikh Fall Baye góor kenn ku ci ne xam na ko bu baax a baax a baax ci pas-pas ak ni muy yaree doomu aadama ni muy yaree doomu aadama mooy genn buum genn càll la fi mu ne kenn koo ci xam ni génn nga li nga wax moom la ñëpp wax. li nga wax moom la ñëpp wax mbooloo mii nga xam ne tey ji ñoo teew fii moom ngeen fekk fii baye boo mën a la Sénégal la ndax kenn ku ci ne dëkk nga jóge ci réew mi nga jóge te li nga yóbbu ci lañ fas yéene di sukkandiku ren ba déwén kooku pas-pas la lu ñu toqee tam la kenn koo ci fekk tey ji mu jóge Sam nga fekk ko Louga wala nga fekk ko Njaareem wala nga fekk ko Mbàkke Bawol benn pas-pas bi lañ yor pas-pas bi weesuwul lu dul liggéey jaamu yàlla di jëfe ndigal ndigal leetam mooy bu sëñ bi joxal ñee fu mu joxoñ suba ba jant soo noo nga ca nun mbooloo mi bépp yàlla dogal naa tam ku xam sëñ Cheikh Fall Baye góor xam ne àll ba alxuraan ja jaamu yàlla loolu lañ nu yare nii nga xam ne tey jii ni la mbooloo mi tëdd tey jii koo ci xam ne tey jii yàlla dogal na soo jógee fii yaa nga ca tool ya wala lañ lay fekk lañu lay fekk lu wér lay doon nekku ñu yor ay këll di basar basar yi ci biir marché yi du yii Baay Faal soo doon wër yii Baay Faal bay boo ma ne la boo ñëwee ci kër gi koo ne ci ndikkub loxaam ñiy pasar pasar pasari ci mbedd mi ko ne ci ndikkub loxaam du ne la sëñ Cheikh Roqaay sama sëriñ du la ko wax ñii xamuñu lu dul liggéey joxe sëñ bi soxla leen ñu jóg ñooy matériel ub sëñ bi ku demoon xelkom wala nga xamoon xel kom soo fekkee waa kër sëñ Cheikh Fall Baye góor da xam ne ñii ñoom ñooy ñooy ñii loolu moom biir na ñëpp la tax ñu tuddee ko gaynde xelkom ay sëriñ nga fa woon ay taalibe nga fa woon waaye liggéey ga mu liggéey ak jëf jëmu jëf moo tax ñu sàkku ca loole kon kooka dootu gone la ca des boo nee Baye Fall xam nga ni Baye moom kenn du ko kenn du ko fontoo baay moom baay rek la dangay xam ni baay daa jiitu ci kër ñu ne ko baay boo jiituwul ci kër kenn du ne la baay kon sëñ Cheikh Fall ay taalibeem kenn ku ci ne boo ko mësaa jox loxo da lay wax ni la ak fayda soo amul fulla ak fayda sax bu bul ne séenee kenn ci nun ñi ko ci seen muy dox danga xam ni kii sëñ Cheikh Fall lay sëriñam kooku amul sax euh, naatable koo ci seen muy yox yoxi rek dugg ci mbooloo di yox yoxi rek waatal ni rek dëkkul ci kër gi kër gi fulla ak fayda moo ko sos koo ci fekk foo ci fekk ci liggéeyukaay lan la muy liggéeye da ci mën a teg sa bët kon sant nañ yàlla sant yonent bi sant sëriñ Touba sant sëñ Cheikh Roqay sant Njoogu Njaay meeg ñii mu àndal ndax fi nu toog tey jii kenn ku ci ne am nga yitte ju mat yitte dëgg waaye nag nun Baye Fall lii mooy suñu yitte sëñ bi soxla nu nu jóg nun nooy matérielu sëñ bi nun nooy matérielu sëñ bi tey bu ne woon jóge nañ fii kenn ku ci ne wub sa kër mu ne xel kom kenn jaari waatul sa kër loolu mooy pas-pasu Baye Fall kon nun a ah, njoogu yaag ñi nga àndal nun ñëpp sant nañ yàlla sant yonent bi sant sëñ Cheikh Roqay Fall ndax lii kat yombul li tax yombul ah yéen a ko tegal seen bopp seen bët yéen nag woowu nu leen yàllaa leen wo ak sëñ tubaak ak borom bis bi bis bi yéen a ko gisal seen bopp jàppal ko seen bopp xam li bis biy jariñ comme nag yàlla dogal na tey jii ngeen fi mas a ñëw su déwénee na ngeen seetaat seen bopp bu baax xam ni bis bi jar na lu ëpp loolu jërëjëf yi nga xam ne nii yéen ngi seetlu Argentine lii mooy dundub Baye Fall lii sunu borom di wax lan tanaalul birra hattaa tunfiqu mimmaa tuhibbuun noonu la Baye Fall di dundee kon boo xoolee ñoom ni ñu toogee nii rek jataay boobu la ñuy waaye nag soo delluwaatee ci alxuraan di nga dégg sëñ Cheikh Fall Mbaor doon wax naan maanaam saar wi nga xam ne nii moom la ñu santale maam Cheikh Ibrahima Fall mooy yasalunaka anil anfaal yi kon saar woowu dong nga fa sant Fall boo déggee boo ah, boo continué tuuti di nga ne yasalunaka anil anfaal yi qulil anfaalu lillah beneen bi ci euh, dugg ci lislaam lu du da ngaa jaar ci ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah te maam Cheikh Ibrahima Fall mooy baabul muridin te soo duggee foofu xool ñoom li ñuy dund yëpp zikrullah la ñuy dunde te yàlla dafa ne wala zikrullahi akbar wallahu yàlla ma tasnawoon kon loolu mooy dunduk Baye Fall ngeen xool ñoom ni ñuy dunde nii nekkuñu ñoo xam ne ñuy taxawal lañ boo xoolee ñu siluise lañ ñu set lañ ñii ñooy ñi nga xam ne nii ñooy waa kër sëñ Cheikh Fall Baye góor ñoom ñoo dikkoon fii bi euh, liggéey liggéey bu rëy sëñ Cheikh Fall Baye góor jërë ngeen jëf dam se se de yo سباه فمن ينفهم فالمال هم دهم لا إله إلا الله يا فمن ينسه فالمال لا إله إلا الله mbind mi day xaw guddaat waaye karne bi ci daara yi seen kilifa liir naa ko fa lillaahi alhamdu di leen sant rek di leen soññ di soññaat suñ bopp ndax daara yu tarbiya lañ wax mooy kojug yar tax na nun ñëpp ab dongo dadaa def ak jubam ak baaxam day tax bu génnee màjjaali ñu xemmem ko ba tax am ñu te ànd ak ñeneen indaale koo xam ne kii nelaw dongo waa tax boo yoree comportement boo xam ne nii kenn la xemmeem ci ndax yaa ngay tooñ bokkayam ni ah dongo yi di nangam kon ngeen di fexe ba seen jëm yi fu ñu leen gis ngeen di ko nuru ndax Cheikh Ibra Fall da daa wax ne loo bëgg a doon danga koy nuru nuru te dong aw meloom moo melow murit ak murit ak militaire ñoo bokk melow woo xam ne nii fuñ leen gise war nañoo xam ni kii ab dongab tarbiya la dongab tarbiya nag li nga xam ni mooy war ci moom dana war a mën a nangoo sonn te yàlla tax dana war a nangoo xiif te yàlla tax dana waroon liggéey te yàlla tax ndax waajekat dañu woon suñ mustaafal dongab takkoo ak ndongob tarbiya mu ne ko ah ñaar de moo fi ne ndongob takk ko Baye Makhtar Ndiaye sax moo ma ko doon wax nee na bi mu dikkee di jëbbalu sëñ Moussa Wall da ni kat ñaar a fi ne mu ne ko ñaar ñooñu mooy lan mu ne ko ndongob takkoo ak ndongob tarbiya ndongob tar tar takkoo nag mooy ki nga xam ne day ne ca kër ga bu sëñ bi laajee addiye mu joxe bu wooteeb liggéey mu ñëw teew mu ne ko ndongob tarbiya nag mu ne ko kat kooku day liggéeyal yàlla di yelwaan di dunde te du laal ca la muy liggéey dara mu ne ko nag tànn naa boobu te li ma leen di wax waxtu wu ne dama ne am ba am jeex am yàllaa ci gën sëriñ Cheikh Mbakke rahimahullahu danu nu woon yéen a ngi di wut yàlla bàyyi ngeen fa ñoo xam ne nii ña ngay wut àdduna ngeen bàyyi leen fa di wut yàlla nee na dangeen am yàlla fekk leen ci àdduna sa ëpp la leen ci kon wut yàlla taxut a ñàkk àdduna rafet melo jikko jël rek lay doon ba tax na ak tarbiya moom lu mu gën a sell bàyyi mët si ca taayif da daa wax ni dongab daara buy xool jigéen dongab tarbiya nee na bët ba ni càpp ci ndaw si moom it mu ni ko càpp neena na mi ngi mel ni nga yar sa mbuusum ndox duy ko ba mu fees nee na di ca cuutuk ràbb di xëcc muy tuuru noonu la yóbboo sag leer moom it ñoom damay wax ni dogon ak ñoom ñépp naaw xabaayilu seytaan la ñuy wax mooy buum gi nga xam ni moom lay seytaane raw raw ngir tegal na ko léeg-léeg ma dem ci samay daara fekk fa jigéen ma ne leen acca ñii ber leen gi ñu leen ber fii bañ leen a jege tax na budul woon loolu ñu dëkk ak ñun ci dëkk ba ndax fu ñu leen fu ngeen leen fekk seen seytaane ngeen kon loolu it mag nay xam te dañ daa wax ni wolof day wax ni bànneex juróomi minit yu wàcc lu lal jërul gàcce gu wërum réew te alxuraan nee na wala tasiru waasiratun wisra uxra na bàkkaar lum la jege-jege nag te du yow kenn mënula ko wàll ba tax na àndandoo bu baax it day baax yéen a wala fa koy wax wan ma sa xarit ma wax la jikkoom sëriñ bi ni fa kullu xarinin bil maqaarini yaqtadi ka xaswi naahli bi naahli nee na nit ku ne booy wut àndandoo da nga wut àndandoo ju baax mu ngi mel ni ñaari da dàll atte ba ñuy atte morom ji rek kenn du dem bàyyi sa moroom boo ko dee sol ñu ngi leen di sant ak murit nag sëriñ Cheikh Fall Baye Góor rahimahullah da daa wax ni mi ngi mel ni sawara ak boob da koy xëeñ ba yàgg mu taal ko kenn nag ñëwul set kenn ci nun ñëwul rekk set waaye dangay bëggantu rekk ba yàgg nga xëeñ yi tàkk na ku nekk ku xam ku ne ku jébbalu ku ne bëgg a tax nga jébbalu ki nga jébbalu ci moom ak bëgg a ca jiitu damay wax ni ko bëggul doo ko nangoo jébbalu ci moom doo ko nangoo liggéeyal doo ko nangoo jox àddiya sëriñ tuubaa nenu tuubaale abdin muridin saadiqin lahumu bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaati mu ni loolu nga xam ni mooy may gaa yu baax ña jëf joo xam ne ni ëllëg ca la leen di yàllay fayee te sëriñ Touba nee na booy liggéeyal yàlla nee na du la leen kañ la ak fan la dalay bàyyi ngay dof doflu rekk mel ni yëgu la ak tarbiya itam boo ko wutee lépp àpp rek day metti dangay mel ni ku xalaat ni dootoo fa jóg bu fooy jóg dalay dalay boo fay jóg rek dalay bett Serigne Touba nee na booy liggéeyal yàlla du la ne kañ la ak fan la dalay bàyyi nga ne ca rek mu mel ni dala yëgul nee na boo ko demee ba mu lay fay nag nee na dalay fay rek boo fa nekkee boo fa nekkul day fay rek kon fexe ba am yàlla sellal ko yàlla na nu ko yàlla defal ci sunuy dongoy tarbiya ak ñi ko bëgg ñépp ndax fi mu ne nii melaw yi bu njëkkoon dañ leen daa jami kàddu waaye léegi dem na ba tubaab yi sax bu ngeen seetloo fi ñuy dem bala noo am jàmm wala nu bëgg mel ni kii dañuy sol colum bay Faal ànd ak man gën maa jege lool di ma won ni ma sëñ bi gis nga sama col mi te bu njëkkoon ku ko sol ñu ne ah cam murit bi ba tax na kon noo ngi sant yàlla di leen gërëm di am yaakaar ci ñi nga xam ni ñoo fi wuutu mag leen ndax la ma doon leen wax rek magum taalibe mënta ñàkk doonte daa jubul sax ba jóge ca deel waxtaan ak moom mu lay wax ni la ah mbir de baaxul doonte daa jubul woon waaye jaar na fa ba jàll rek nay waxtaan ak yow naan la ah, nangam de baaxul ndax am na ku deful lu baax koo xam ni yéenewu ko kenn te xam na la lam lam ko yàqal mooy tax muy waxtaan ak yow na moom amatul cër boo xam ne nii da ko cay jëlee boo xam ne am na amal na ko important loolu dañuy wax ni murit bu ne day war de am magum taalibe ñun day nuñ doon wute sunu magum taalibe jar ne danga koy taxanal aw say dikk jox ko mu waxtaanal la ay baat yoo xam ne dalay lay dolli nga dem noonu day wax dëgg daa ko sàkkoo mbagub taalibe ndéem lu yem ci loola nga am ndax doo nga ab am amam bariwul waaye sañ naa dem taxaniw say dikk sa pël la ni la saa ñoo ngi sayaare kooka itam jël ca xolam ba lam xamoon yulli la ko ngir nga moytoo ko pàkk yi ndax li gën a metti ci àdduna mooy defar ko mu yàqu benn sëriñ bëggul dongam yàqu saa yu yàqu rek am na kersa ku sañoon doo defar dara mu yàqu te yàlla bu leen yàqule waaw naa sëñ Badara ngeen santal la dangay ma nag lu am solo la waaye dafa wax yëg la nga xam ne am na solo bu tëdd am saamaan su kaw daal di yëgoo man nga faa te ba asamaan set doo xam ne am saamaan la waaye wax nga ko yëgee nga jóg yëpp bu nga ba ni ba ni sax dama donge yi Fall donge yëpp ñu wëpp la sant Fall nga la yëg léegi moo ji yu lii rajo yu nekk am na ñu wax yow yaa ci jiitu te la nga wut ak mbokk te boo sañoon ñu am ko ndax liggéey yàlla am métti te boo sañoon kenn ku ne tukki wut yàlla la muy wut dina ko am. ñëwee léegi ak ci yomb dong yu fàttali ñu baax a baax ñu ne seen baax di leen gërëm donc seen bu ñu seen baax baax la jërëjëf. li tax ma daal di ko ci mënalul da nga dem ba yoonu saako tuddoo ko li koy waral mooy dañoo wax ni ak yéen a naan am ñu bëri ku ñu ne naan. boo liggéey bi ah kii de fóot ay cëram ca sawar loolu nag boo ko waree te àggaloo loola lay topp nag léeg-léeg gis ko tarbiya nag demaat ay kalaw kalaw yooyu rek moo koy waral ndax moom fokk gannaaw matal la ne lay nag ah moom it dana matal ak cëram kon yaa subi laay ci coono ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal suñu borom dafa leen taw ba si taal bi maanaam mos a dara seen naan moom. Serigne ne ko yëpp maa koy wax tam yàgg te lool barke te wàññi mu seen la suñ ci àppal ndaay góor amin amin Fall jërëjëf